indi alal moo koy indi topp sa kër maam bàyyi li alquran jàngale bàyyi lu na jàngale ndax sa kër maam dajale na ay nit dof loo leen ñu yëkkati di leen jox nga foog ni mooy addina déedéet fer nañ wallahi fer nañ ndaw ñi ku yaakaar ñu jox la hadiya dee nga ku yaakaar ñu lay bayal sa tool amaa yi duñ la ko defal jamais jamais gis nga ndaw ñi noppalul démb maa ngi waxtaan ak sam benn góor mu ne ma sàll man dey maa ngi leen di ñaanal ma ne ko yàlla nañu yàlla nangul mu ne mag laa de maa ngi seetlu ba ma dalee xool ba léegi vingt ans seen sunna bi ay ndaw rek laa ciy gis te ndaw lu mu nekk mu barkeel ñaareel bi musu maa gis ci yéen ku ñëw nekk ahlu sunna dellu bàyyi ko dem nekk ahlu bidaa ma ne ko du am du am ci kaw suuf kenn du gis sunna di dellu ci bidaa loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu siñanteeg waa Quraysh ñu ne ko li ñu bëgg mooy ku àndak ak yow su ñëwee ci ñun doo ko jël si ku jóge ci ñun bu jëmee ci yow ñu jël si ko yonent bi nangu Umar ne ko déedéet yonent bi pour lan ñoom ku jóge ci ñoom ñëw ci ñun ñu delloo la ko ñun ku jóge ci ñun ñëw ci ñoom duñ ñu ko delloo yonent bi teg loxoom ci mbaggu Umar ne ko Umar mun naa mu ne ko xanaa doy la mun naa mu ne ko Umar baal noonu xam nga lu mu ko fa nëbbal kenn du dugg ci diine di génnaat doo ko gis dund bi daa ñu bay loola sonal la laaj la xaalis ba nga dee nga xëy dund sunna di delluwaat kuy génn kaso di delluwaat ku koy def génn kaso di delluwaat ki nga nekkal mu lay tiital di la gëmloo ni maa yore àjjana maa yore safara tey nga yaakaar ma yàlla la ñuy yaakaar قل موتوا بغيظكم سين كير مامي دانا واغنيكو ان شاء الله سنة كانام رك لا جيم سنة هي سفينة النجاة كو باغ توغال لولا نيه واخال دو تخ نيت ني ديلوسي ماغي لين دي كونسي مويتو لين دي دغلو ين واخ يي تي راديو يي شبه لا نيو دوغال سيني نوب اي تياخان لا نيو تي دوغال انديل لين اي فتنه يدول جيخ مبوكي يونتي بي لان لو عليكم بسنه ورنا نجيل سما سنه تزكية أبو بكر تزكية عمر تزكية عثمان تزكية علي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي لولا تك من بعدي ورنا تي ين ген جيل سما سنة اك سنة سما صحابة سما جناو ñan ñoy samay sahaba khulafa rashidin mune al rashidin rashid moy lan ci arab ñu jub xocc al mahdiyin ñuy jubale khulafa al arba ñoo yàlla moo leen garanti loolu yonent bi moo leen ko waxal moo